waawoon seeti waa kër Seydi Hadj eh, di visite bu am solo mu dem ci xalifa ba sëñ Babacar Sy Mansour yàlla na fi yàgg te ak mboolem waa xadara ba ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen jottali sunum nuyoo mm-hmm. ba fa demee gis nga dafa jóge Touba dem fa mu leer ne loolu dafa am message bu muy jàngale mm-hmm. man ni mu jógee Tiwaaw dem Tiwaawoon ci gisinu wolof mm-hmm. maanaam mënees na cee jàngee ne kon këru diine yëpp benn la mhm. ndax bu ko neexoon ñëw dakaar waajaat beneen bis dem waaye gis nga ko da ko def benn yoon mu leer na xaj ne leer na man bu guddi doon sax mën na faa jógee dem Kaolack dem fépp wër ko mhm. kon loolu day jàngale ne kilifa diine yi kenn mënut a réew mi te àndoo ak ñoom ndax ànd gi nga ànd ak ñoom dafa lay jàppandal sa liggéey mooy mu comprendre ko lool ndax jomaay bi muy doo a falu wax ju ne dégg nga ko fi mhm. euh, faaliwut kilifa diine yi respecté wu leen salafis yi ñoo ko ngemb nangam ak waaye moom aw aw jëfina moom weddi ne li ko gars yi tuumaal am na loolu moom aw jëfina weddi na ko ndax toujours respect bi muy jox kilifa diine yi buy wax sax da nga gis ne ku leen warmaal la ci wàllu yar côté mhm. teggin mhm. te it ni muy waxee ñoom da leen jàppe sëriñ jàppe leen waajur donc ci waxin bi moom gis nañ ci yar ci jëfin ji gis nañ ci yar boo xam ne moom mi ngi koy doxalee kilifa diine yi te am yéene ci ñoom ba pare jox leen war ma ñoom it bi mu agsee ñoom gis nga ni ko tatagalee kon jàpp naa ne yooyu yëpp dafay màndargaal ne yoon wii mu jaar nii yàlla na ko yàlla musal ci cat waaye bu ko wàccut li mu bëgg dina ko am xam nga sunum réew laaj daa wax ne waxul imalu waaye waxul waxul xooloo yàlla nee na yàlla waxul ne neel gaa yi nañ wax daf neel gaa yi nañ jëf fasayara llaahu amalakum wa rasuluhu wal muminuun su ngeen jëfee yàlla dina ko gis soo gisee wan ko yonent bi mhm. yonent bi wan ko jullit yi mhm. kon yëf yi la ñuy jëf rek xam nga nun suñu seex mhm. fi ne boo toogee sax ne la président mi ngi góorgóorlu nangam ak nangam xam nga leen di wax ña ngi koy xalamal boo ne njuumte langam la def ñu ma ngi koy sànni xeer ñun ñun ci diggante diggante ba la ñuy toll ma ngi koy xalamal ma ngi koy sànni xeer ba tax soo seetloo léeg-léeg ñu deex ne ah Matar xaali ku baax la defuluma dara nag baat boobu lu ko ci indi déw ta wax de comme yëg nga ne mbaax la rek wax ko loolu ko ci Matar Xaali ku baax la defuluma dara nag wala sax mosuma koo nuyu déedéet loolu la ko fi indi bu fekkee yow li nga wax dëgg la te seet nga ci sa borom waxal rek teg waxal rek waaw l'essentiel boo wax wax yàq même kuy critique sax bu ko defee bu ci fekkee daf ci ànd ak objectivité mhm. critique ba baax na mhm. ndax ndax kero ba Omar Xataab taxawee ci jàkka ja sol xaftaan bu jot daat ne ibadallah na ngeen boole déglu ak topp waa def na ko hee duñ dégg duñ la topp xanaa nga wax ñu sa xaftaan bii noo def ba mu jot ku la abiyee <laughs> mu ne ko barki dem bu ñuy sedd séddale yëre ya la nga ci amul muy tudd xaftaan nga ñëw tey solub xaftaan mbaa du keesu état bi nga tibb def ci xaftaan allahu akbar la ko wax direct si Cheikh dafa daane rek garde rapproché jóg songuwaay ji. Mhm. na ko xam ngay waxal. Mhm. loolu lañ ko. ndeysaan Omar daal ne bañ xool ko mu ne ko mu leen daawuhu. Mhm. bàyyi leen jàmbur. bàyyi leen jàmbur. bàyyi leen jàmbur ñëpp na saaw mu ne leen laa xayra fiikum isa lam taquluha wala xayra fii naa isa lam nasmaaha ndeysaan su fekkee nii mu def nii du ngeen ko def baaxu leen mm-hmm. bu fekkee boo ko waxee ñun duñ ko dégg nun noo baaxut mm-hmm. waaw nga xam ne mm-hmm. audit audit en direct la sëñ Cheikh dafa woo doom ji ne ko tontu ko ah, ah, ah, Abdoulaye ibnu Omar Abdoulaye Omar jóg ni ko wax nga dëgg lañ ko joxoon barki démb bu mutilitu xaftaan waaye man mii doomam lañ ma joxoon ma laa boole li lim lim jo li lim am mu boole ñaari ñaar ñaari ñaari wàll yi. Mm-hmm. ci la sol xaftaan. Mm-hmm. waaye door a àgg sol ne ko léegi su la neexee wax. la wax ñu dégg ko. donc loolu mooy yëf yi. Mm-hmm. nag président. ñu koy jàppaleeg. ministre yi ku ci nekk. jàpp nañ ne ku ci nekk teg nañ la foo ne fii foofu baax na. aceen doxal. des nag nun xeet li ci sunu wàll. si Cheikh. ñaan ca la bokk. waaye soppi ko nag ca la bokk. kon daal dafa jot ñu soppi yenn jikko yi nga xam ne ñu ngi koy def te jaaduwut. bàyyi brûler feu mhm. bàyyi dagoog rang mhm. bàyyi fu nu neex gaare mhm. bàyyi lu nu neex wax surtout loolu bàyyi lu nu neex def hmm? loolu sañ-sañ yooyu bi bu ñu ko bàyyiwut ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñoo ko gën a xam suñ ko bàyyiwut nii rek lay demee kon nag nun noo koy noo koy noo koy soppi bàyyi ko su ko defee loolu dimbal la ci moom te dimbal moom dimbal la ci ñun mhm. ndax ginnaaw moom mooy moo mooy toppatoo yu bari mhm. nga xam ne ñun mënuñu faa dem mënuñoo dem bitim réew mhm. am na signature yoo xam ne mënuñu ko signé ñu ne ko ay ni ñu ko defal ba noppi nag bu ñu ko yéenewul jàmm boo moytul du ñu ko defal <laughs> am déet par exemple damaa bëgg a wàññi ceeb bi ne ko mu gis ne am na yu fi doon ndox ci wàllu ci wàllu ci wàllu euh, TVA mu gis ko mu gis ne po impôt bitim réew ñu la daan demee damay misaal rek nag wala impôt sàngam ñu la demee mu mu récupérer loola fexe ba jot ko fexe ba dugal ko ci njëgum ceeb ba mu wàññi ko ku mu ko defal ñun la ko defal ñun la ko defal dëgg la noonu la ko defal mhm. donc lu am solo la mhm. euh, ci wàllu doxalin ak tëralin bi mhm. wa shukran ci laaj ba am solo bi ah jërëjëf jaajëfal euh, fan Ndiaye Seck mi ngi nii di soññe naan abonné leen aimé leen et partagé leen <laughs> Euh, jërëjëf oustaz euh, ci entre parenthèse boobu nga xam ne dugaloon nañ ko ci jataay bi mhm. mu soxal diine loolu moo tax ñu dugal ko ci xam naa du ñàkk ci actualité yi nga xam ne mooy ñëw ci kanam incha allah incha allah yenn euh, poñ yi dina ci leer bu neexee borom bi tabaraka wa taala mhm. partie bi ñeeloon diine ji ak kilifa diine yi ci tontu bataaxal bi moo ci tàbbi woon incha allahu rabbul alamin kon ñu ngi koy jaajëfal bu baax président de la république ci visite boobu nga xam ne mhm. def na ko ci këru diine yi muy visite bu am solo boo xam ne Euh, dañ ko tukkee tukki nemmiku waaye du tukki sax ndax daanaka boo ko xoolee euh, ñenn ci askan wi bokk ñi nga xam ne dañ leen déglu ci wàllu diine ji mhm. di leen bàyyi xel moo xam Tuubaa la Tiwaawan Njaasaan Kawlax fépp foo xam ne ëttu këru diine la rek ñoom ñëpp euh, seen tabax réew mi seen participation def ci am solo mhm. ndax ni ñu nekkee ci réew mi di defar xeet wi di waxtaan ak ñoom di jubbanti comme ni mu ko sàkkoo moom président la république jub jubal jubanti yaakaar naa ñett yooyu président bëgg muy jub jubal jubanti mhm. faaw kilifa diine ay acteur lañ ciy doon mhm. maanaam ñoo doon téléspectateur ay acteur lañ doon walaay ndeysaan waaw ndax euh, jubal dañ cee bokk ñi nga xam dañ ciy doxal euh, par exemple li ngay def nii sax acteur boo am solo la ci toog di waar jaam ñi di leen delloo ci yàlla alhamdulilah loolu loo am solo la ci jërëjëf jubbanti it mooy fexe defar sa jëmm mhm. ba ku ci yow jub loolu mooy jubanti bi gën a gaaw mhm. te loolu da nga koy gis ci kilifa diine yi alhamdulilah daanaka da nga leen gis ñu ne loo xam ne lépp lu ngërëmul suñu borom la di ca góorgóorlu mhm. di ñaax jullit yi di taxaw ci daara yeeg yooyu lépp lu am solo la mhm. kon jàpp naa ne xam naa bu paree ci loolu du ñàkk yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci daara yi di yëngu mu def visite seet si leen ndax insha allah rabbul alamin xam naa defar daara yi insha allah day laaj toog waxtaan ndax yéen ñi nga ngeen ne ci daara yi ndax daara ji dafa bari lu ci dugg te bokku ci. waaw ah, dégg dégg nañ message bi ci Tivaouane kay. Mhm. ci wàllu lu jëm ci moderniser. daara yi daara yi. Mhm. dégg nañ ci ci loolu. ndeysaan jombul bu toogee ba woo liggéey li liggéey daara. Mhm. Euh, jombul am ñoom luñ ko ca avancé ndax am na dossier bu fi nekkoon boo xam ne bii ku ko defar mu baax. incha allah jërëjëf. man de xam naa ne bu bu ma doon bu ma doon jomaay euh, yow laay def ministre ci wàllu <laughs> wàllu daara alxuraan yi ndax xam nga secteur bi miin nga ko. soo ci nekkoon moom xam naa ne dina dox te ger doot ci am. ndeysaan <laughs> eh, jërëjëf oustaz ci leeral